noo ngi ko jëmale ci bis bu màgg bi nu dëgmal di bisub tabaski nu jagleele ko nag am tabaski ci boppam la ñuy muy loo xam ne jullit bu ne war na ko yittewoo ngir sàkku ci tuyaaba ngir la xadis ba wax ne képp koo xam ne tabaski na ànd ci ak xol bu sedd guyyu ngir sàkku ci tuyaaba tabaski moomee mooy dox digganteem ak sawara waaye ku ne itam war na ko yittewoo ngir la sayidatna Aïcha wax ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne doomu aadama bi de bisub tabaski jëfalu ci yàlla lu ko gënal tuur deret jooji kon dëgmal nañ bis bi te tey jii ci ajjuma ji lanuy seenu weer wi di ñaan suñu borom yeggal nu ca ak jàmm am na xadis buy wax ne sax bu ngeen gisee weer wii di weeru sil xijja muy weeru tabaski képp koo xam ne ci yéen bëgg naa tabaski mooy bëgg naa defar am tabaski bu fekkee ne wotoogul te weer weer wi dugg na ba noppi na bàyyi ba yegg ca bis ba mu door a watu ay wexam itam mën naa bàyyi ba booba mu door koo leewi kon bokk yi tabaski war nañoo xam lan mooy ab atteem tabaski sunna la su dëgër dëgër am na ci ñenn ñu ko waral waaye sunna la su dëgër dëgër ci jëmm joo xam ne man na ko man gi nag mooy ki nga xam ne bi mu xoolee ba natt boppam gis na ne fii ba déwén ci heure bii kat lii mu nam ma jënne tabaski mii du ko fi aajowaat ci wàllu dundug boppam wala dundug njabootam walla sax koddaay mbaa bërëb bu muy ne bu nattee boppam ba xam ne lii kat du ko fi aajowaat fii déwén ci waxtu wi walla bu koy aajowoo dogal bu koy bett la ñu xam ne kooki mën na ko da nga ci gis mag moo xam ne mën naa tabaski waaye du ko def ndax dafa mel ne fii ci réew mi moom aada ji dafa bari lool day bàyyi ba denc rek ba denc soxna door a tàmbalee tabaski te fekk ba mu dencagul sax la ko gën a man kon tabaski moom sunna la ci ki ko man moo xam góor la wala jigéen mag la wala ndaw donte ne sax ab jirim la kon sunna la su deugar deugar ci mom tabaski nak ci ñent yi lañ koy defé té ñu bok ci juri kër yi muy xar wala bay wala nak wala gelem boko ci ma defé nga defé ko ci bu ci non nak am na tollu way bu muy amé nga dog ñu ne sam tabaski kat mat na ci walu gogi. bu am xara na amum at ba dugg ci atum ñaarel ma donte ne benn fan la ca am léeg nga gis kuy jaayum xar di la ko yéemuloo ci ne moom day juróom-ñeenti weer la am wala fukki weer la am ndax xar xar sàngam la waaye gis nga ni mu ngir dayo ba ne ko waaye de lii mënul li may te mooy am tabaski laay nee ñu ma faaw mu matum at ba tegal benn fan doonte benn fan lay tegal loolu ñu koy bàyyi xel baax a baax at mi daf cee bokk ci charte yi bu dee aw naga bu dee aw bëya na amum at ba dugg ci atum ñaaree ma dugg fés donte ne Euh, euh, dugg gi fes gi mooy lu mel ne mu am at ak weer wala at ak ñaari weer nga doog ko sañ a tabaskee bu dee aw nag mu am ñetti at nagu am ñetti at ngay ngay mën a tabaskee ba dugg ci atum ñeenteel ma donte benn fan la cay duggee bu dee gëleem mu am juróomi at ba dugg ci atum juróom ma donte ne benn fan la cay duggee moom la cay duggee moom it waaye nag yii mu la wax yépp ne la moom la ñuy tabaskee la ca gën mooy am xar nga wutum xar moo gën bay topp ca Nak top ca gëleem dok ca top. waye yep itam la ca gën moy ba ca donum góor xar mu góor nga tabaske ko mo gën nga tabaske xar mu jigen bo amul xar mu góor nga do wut xar mu jigen bay top ca bay nak non bo mu góor nga wut bu jigen fi nak ku fi jitalon am xar mu jigen wala nga jital fi aw bay nga gis gona yu ca top wala nga dem ca kër ga gona ya nan bay bay la yew wala xar la yew wala sax jigen ñi ci bopam taxaw aw bay nga may yewal waaw moom mooy tabaski wala soxna say tabaski loolu itam mat day bàyyi xel bu baax a baax te loolu dara wër lu ko lu dul aana ji ñuy dund rek mooy da ngay gis koo xam ne mooy li ma waxoon rek am na ko koy man waaye du ko def day bàyyi ba denc door a tàmbalee wutum tabaski kon su boobaa jigéen ñi day jàpp ne moo ko moom loolu itam nañ koy bàyyi xel bu baax a baax kon itam euh, ma cay am kuuy itam moo gën mañ tàpp bu fekkee ne xar muñ tàpp la lay tax mu gën kuuy ma mooy daa fekk mu gën a duuf kuuy ma bu fekkee ne moo gën a duuf rek su boobaa mu daal di gën kuuy mi daal jàppal ne su gënee moo mook miñ tàpp ñoo tolloo ab duufaay mbaa mu ëpp ko waaye bu ko bu ko mañ mañ tàpp gënee duuf rek su boobaa mañ tàpp gën ko moom lañuy jiital ñoo xam ne tabaski moom itam dafa am waxtu woo xam ne ci lañ koy defar bu dee ci wàllu imaam na julli xutba bu noppee daal di defar am tabaskeem bu dee ku bokkut ak imaam nag moom day bàyyi ba imaam defar am tabaskeem ba noppi looloo tax ñuy bëgg imaam di indi am xaram ci jullikaay bu ko defee ñu bëri teewe ko ba imaam defar ab gàttam ba noppi ba dem bu ko defee bu ñu duñ duñ jiitu imaam kon ku dul imaam nag day bàyyi ba imaam defar ab gàttam ba noppi mu door a defar waxtu woo woowu nag dana continuer ba ca bisum ñetteel ba ndax ni ñu koy waxee tabaski ñetti fan la muy bisum fukkeel bi fukkeel ba ak benn fukkeel ba ak ñaar ci jiitu googu yi sax ñu naan la boo jiitoo imaam du doy am na ci beneen xadis sax boo xam ne moom waxuñ sax jiitu imaam nga waaye dañ ne jiitu julli lañ wax jiitu julli te mooy xadis bay wax ne man zabaxa qabla salaati fa innama zabaxa li nafsihi wa man zabaxa baada salaati faqad tamma nusukuhu wa asaaba sunnatal muslimin mooy képp koo xam ne daal defar na am tabaskeem njëkk ñuy julli loolu euh, xanaa day jàpp ne ak ndawal képp la am waaye nag bu fekkee ne gannaaw bu ñu julee la ko defar jaamu yàlla ga mat na kon yi yu mel yu mel nii mat nay bàyyi xel bu baax a baax bala ñuy yegg ci bis ba di yem ci ndawalu képp te fexe wët jaamu yàlla gi nga xam ne moom lañ ci sa moom lañ ciy dabu muy ak jaamu yàlla imaam buñ ne laa bu la jiitu ci rendigoo gi moom bu fekkee ne imaam ñi dafa yeexantalu ci ak rendeem te amul lenn ngànt su boobaa dañ naan la yow mii néggandikul néggandikul kem diir boo xam ne daal war na fee mën a defar ab gàtt moom imaam ji nga door defar sab gàtt naka noonu itam bu fekkee ne imaam ji yëgle na ne moom mii kat du tabaski du defar am tabaski su waaye dangay ngay nattale diir boobu rek bu doon bu doon war a defar daal diggante bi war na fee defar nga door a defar bu fekkee ne yeexamtalu gam yeexamtalu ba defaragut am gàttam la ko waral ak ab gàttam la ko waral mooy ngànt kon su waaw dañuy sopp ci yow nga baña defar sab gatt nga xaarandi nga xaar ba tisbar xawa a jege sax nga doora defar sab euh kon bis yoy mu la wax ne moy bis tabaski baca ba ca gën moy bis bu ñëkk bi te moy bisu fukel bo ci amé am tabaski ba keroog jant bi so defaral sam gatt nga tabaski bu fekké ne amoko ko bisum ñaaral moy bu tabaski ba ci suba nga defar bu fekké amoko nga doora dem nak ca bisum ñettel ba bisum ñettel bu jalé nak lay lay gënaat moy mujjug bisub ñaa ñaareel ba mooy gën mujjug bisub ñetteel ba noonu lañ toftaloo ci ak gënante kon bu fekkee ne ñoo xam ne dañoo nekk ci bërëb boo xam ne amuñu imaam dëkk boo xam ne amuñu imaam ñooñu dañuy nattale euh, imaam ji leen gën a jege nga xam ne bu ñu xoolee seen diggante ak imaam ji leen gën a jege rombut 4 euh, genn wàll ñeent ñeenti ak genn wàll bu ko rombut rek dañuy nattale ci kooku daal ne imaam ji nu gën a jege kon war naa julli war naa defar ab gàttam war naa julli war naa xutba war naa defar ab gàttam kon su boobaa nga door nga door a defar sa gàtt boo nattalee ba noppi itam ginnaaw mu leer na la jiitu nga imaam ja comme def nga nattalee ga rek téewut dana doy am tabaski yooyu yëpp mat na bàyyi xel bu baax a baax euh, li gën ci nag ki nga xam mooy tabaski mooy tabaskeem bi mu boole ci ñett yii mooy na ci lekk na ci saraxe na ci joxe addiya mooy na ci maye moo xam ab sëriñ lay ab sëriñam lay jox lay jox addiya moom moom lay may wala day xool kenn ku may ndax maye googu sax léeg ngay gis ñuy defe ci réew mi noo xam ne sart gañ cay sart moo tax baaxut muy da ngay fekk am xar ñu ne lii de mooy fàllaray maam yi lii euh, xolub jaam lii tànk tànk njëkki lu ne ñu séddale ko partagé ko weer wane ne lii kat kee moo ko moom loolu sartal gañ ko ca sartal moo tax baaxut waaye bu fekkoon daa yëkkati rek ngir xam ne sañ na koo may mu yëkkati may ko dara du ca dara du ci nekk loolu mat nay bàyyi xel bu baax a baax kon ñu xamne tabaski amna ay sartu yo xamne moy tax mu bax ñent la ba ci njëkk am tabaski kenn duko defar guddi boko defé dem boko defé defee guddi na la wër ne ndawal kep nga am waye yoolu jaamu ya, yàlla jaamu yàlla gam amo amoo ko moom ñaareel ba moy ki koy defar itam na doon ab julit ki koy defar na doon ab julit ñettel ba moy na muccu ci li ñuy wax participation da nga joxe 50000 ma joxe 50000 ki joxe 50000 ñu jënd am tabaski ñun ñett ñoko bokk bu boobaa ndawalu képp lañu am waaye bu fekkoon ne damaa dangaa joxe ma joxe kii joxe ñu jënd am tabaski ne suñu wayjur wi lañu ko wëtal dana baax moom bu si bu bu bu defaree am tabaski bu ñu yéenee sax ñu yéene googu ñu ngi ciy yow waaye euh, joxe lii ma joxe lii ngir ñu wëtam tabaski moom mënta mënta neex saa su def saa su amee rek ndaw la képp mën nañ ko am de waaye la tax ñu naan tabaski moom amuñ ko moom waaye nag dana dagan ñu bokk lan mooy ab yool damaa wër samam tabaski sañ naa ci sañ na maa yéene ci yool bi ay nit nit ñooñu nag dañ lay sartal ne ñii lañu doon ci ñett ci ñett ñett saart lañ lay saartal njëkk ngay rend lay doon itam ñett saart yi mooy kooku nga yéene ci yool bi na doon sa mbokk mu la jege na doon sab jege ñaale jege ñaale googi nag soxna daf ciy duggaale na doon koo xam ne yaa koy dundal donte ne dundal ga waru la daf da nga koo coobarewu ba ca ñett ba ko ñetteel mooy na ngeen bokk génn kër gu ngeen dëkk donte ne dafa nekk ci appartement bi nga nekk ci appartement waaye na ngeen bokk génn kër gu ngeen dëkk kon bu fekkee ne ku mel ne sa doom ji nga xam ne yaa ko war dundal waaye nekkul ci yow nekkul ci kër gi am na fu mu ne moo xam yàgg way jur ba jigéen da ngeen tàggoo mu ne foofa wala danga koo joxe ci bërëb nga xam ne donte yaa ngi yaa ngi ko yónnee li muy dund sax moom bokku leen ñàkk ngeen ñàkk bokk kër gu ngeen dëkk moo tax fi ne yow mënoo koo yéene ci yool bi waaye nag su la neexee lañ waxoon muy man ngaa dagg ci euh, ndawal gi nga may ko ca kon loolu mën naa ne waaye yool ba moom bu fekkee nag ngaa bëgg mu am yoolu tabaski boo ko mënee nga ko am tabaski nga yónnee ko ko kon ñu bàyyi ko xel baax a baax ñeenteel ba nag mooy na mucc ci fukki sikk ak juróom-ñeent yi nga xam ne day téye xar mi doy léeg-léeg nga gis ci koo xam ne day jiitalum xar nga gis ci ñett sikk ngi koy séen te moom bàyyiwu ko xel ndax moom jàpp ne am xar la yor rek bum pat bum ñàkk ab cër lu mooy yaari way yore ya bum ñàkk mën a wax mooy bum luu bu gimiñ gi xesaw bum tëx bu nopp yi tuuti bum làpp bu geen bi dagg bu béjjën bi damm te wéragul bu béjjën bi damm te naccu dañu wax waaye bu fekkee ne nàccut sax waaye wéragul ñàkk gaa wér mooy tey mu doy bu batt bi wow loolu mooy bu fekkee ne xar mu jigéen la mooy fi fi fi muy nàmpale bu mu wow geenu ginnaaw bi itam ceer ba maanaam boo ko defee ñetti xaaj benn ba bu mu dagg saa su daggee rek dootu doy bu mu tawat tawat ju fés bu mu ràmm ràmm gu fés bu mu fër fër gu fës bu mu dof ndof gu fés bu mu làggee làgg gu fës yii mu la ne lu fés bu fekkee na fésu rek du tee mu doy moom bu mu ñàkk itam lu ëpp benn bañ te foq waralu ko mage waralu ko bu mu ñàkk ceerub nopp ba itam lu ëpp lu ëpp nopp ba lu ëpp ceeru nopp ba itam bu mu xar kon yii mooy sikk yi nga xam ne day tee mu doy kon mu wax la ne la nag tabaski mi dañ cee sopp yii muy na mucc ci sikk suñ ne la du tee mu doy sikk sépp sikk soxna nee nañ la du tee mu doy rek na ca mucc loolu luñ bëgg la maanaam na doon xar xar moo xam ne mucc na ayib na doon xar moo xam ne itam dafay duuf na doon xar mu taaru mu rafet lool nga génne ko rek ci jullikaay bu lu ñu sopp la mooy bu fekkee ne fa ñu jullee dafa nekk ab àll di ak daan dafay fay goo xam ne bu fa ñëpp defaree itam du tax mu salte waaye bu fekkee ne day fuy salte rek foofu imaam rek la ñuy bëgg mu daal di génnee am tabaskim defare ko fa naka noonu itam ki nga xam ne moom moom tabaskim yi dañoo bëgg mu defaral ko boppam mu defaral ko boppam donte ne jigéen la dañoo bëgg mu lewetalal ko boppam euh, bu fekkee ne dafa am sa mbokk moo xam ne moo la ko daan defaral mu defaral la ko su boobaa dana doy waaye bu fekkee ne daaw la ko defaral nag moom su boobaa dañ naan la du doy bu dee ab jàmbur la nag bu la ko daa defaral ñaari wax am na ca am na ñoo xam ne nee ñu dana doy am ñu ne du doy bu fekkee ne daaw la ko defaral nag moom du doy moom naka noonu boo jaawale woon sam tabaski ak tabaskim keneen daal koy defar du doy da ngaa teg sam sam sab gàtt nit am koo xam ne gàttam ngi ni nga jaawale sam tabaski akum tabaskiyam nga defar ko su boobaa du la doy am tabaski moom dañ ko bàyyi xel baax a baax kon yii dafay xaraam dañ koy tere mooy ngay jaay ngay jaay dara ci tabaski mi ginnaaw bi nga defar ngay ciy jaay dara dañ koy dañ koy sip dafay dafay xaraam wala nga ciy weccoo dara baa ngay weccoo sax tabaski mi loolu dañ ko de jël jël ci dagg ci dara ne diw wecc ma lii dañ ko dañ ko tere lool na ko itam dañuy sip ngay naan am soowam bu fekkee ne gàtt bu jigéen la bala ngay dagg ak kawaram euh, te defaragoo ko naka noonu may ci ab yéefar dañ koy sib waaye sib nañ lool seeral njëg mi njëg li gàttub man ngaa tabaskee gàtt ñaar fukk wala fanweer nga romb ko fi dem ba gàttub million wala ñaari million loolu dañ koo sib lool dañu bëgg mooy nga wët mu digg doomu moo xam ne baax na nga tabaskee ko la nga na la nga ca nanoon dool dolli mu di la julal ak fukkaréw nga seet ñi nga xam ne aaje woon nañ ko nga jox leen ko ñu wutum tabaski ndax bëri na ñu lay jege lool ñoo xam ne duñ amum tabaski loolu mat nay bàyyi xel bu baax a baax loolu dañ koy dañ koy sib lool waaye itam nañ ràññatle te bàyyi xel ne tabaski moom li fekk defaragoo ko ba noppi amagoo am tabaski ndax léeg nga gis koy jiital am tabaski di ko dóor mbaa mu koy mbaa mu koy bëmax mën naa mbëkk ba jëm a damm su boobaa doon doyatul am tabaski wala tànk ba damm lu ne sikk su ne mën na koo gaar kon yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel te xam ne li feek defaraguñ tabaski mi yegguñ ba julli ba defar tabaski mu noppi amagoo am tabaski bu dee hadiyu la nag foofu la ñu wutee ndax bu dee hadiyu moom boo xasee bu bët sa jaan wàcc na waaye lii dañ ko bàyyi xel baax a baax kon yàlla na nañu yàlla yeggale ci bis ba te nangoon na sunu jaamu yàlla te fekk loonu ko ay ati at yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal mbooleem jullit